monsieur le ministre man dama ruus tey dama ruus bi le maire de Tivaouane taxawee fii ci pupitre bi te tout récemment même pas une semaine Tivaouane gépp génn ci ci ci mbedd Tivaouane di réclamer seen stade moom mu taxaw fii di wax ay ay ay ay CBAO ay kenn xamul gis nga dafa am loo xam ni gis nga man fii ma fi taxawee Tivaouane ma ñor ñoom laay waxal lu ma leen war a waxal mais dafa am loo xam ni pendant trois ans ñu toog ci benn stade mais xanaa war nga koo mën a dimbali defaral ko stade bi stade bi jaañ si mbeng moo leen may gazon yi waa xanaa yaa xayti ku def ku ku ku am mandat wu cinq ans defagum nga deux ans war ngaa mën a def loo xam ni ca Tiwaawan loo xam ni lu nit ñi lii jóob si moo ko fi def mais dara defu ko fa te li may wax nii du waxu caaxaan xam nga xam nga Tiwaawan na leen def marché Tiwaawan ñëw bëgg yoon bi leer mu mu mu bopp bi maire yépp dugal leen ci biir marché ba wàcc leen ci naaj bi ñuy naaj bi di leen sonal est-ce que loolu am na sens pour rek ku romb ni noo tali bi leer na te fekk fa mu leen sànni moo gën a bon sax fa mu leen jële loolu rafetul ñun nag Tivaouane képp ku taxaw di def loo xam ne naka sudul noonu lu man ci combattre la dinañ ko def mais defuñu ko ngir lenn defuñu ko ngir lenn beneen bi ci des Ngañ Diouf Koul Mbayeen est-ce que mas ngaa gis commune boo xam ni un mètre goudron amu ko loolu Tivaouane la am commune boo xam ni commune bi yëpp soo ko wëree amul un mètre goudron ñetti commune yooyu fan yi dem naa fi Fouta xaw ma nu koy waxee sax bandéraabe mi salmino Aliou du Dia moo tax man ma xam nan la ñuy néew ci ci ci alpulaar mais wër nañ Fouta mais Fouta man bu ma gisee ay député taxaw fii dëkku Fouta di tagg ñenn ñi man daf may jaaxal parce que Fuuta ay néegi ban ñoo fa am ba léegi ay néegi ban ñoo fa am ba léegi maa xam yow dafa ma jaaxal non moo am de non dama bëgg ñu defaral leen Fuuta rek moo tax may wax loolu beneen bi ci des mooy meewaan meewaan fan yi Amadou Ba dem na fa Amadou Ba dem na meewaan lancer travaux tali tali meewaan waaye yaa xayti dayaa jóob nga xam ne un un kilomètre la ak meewaan dëkku yu taxaloo nga ñëw defar tali pour mu jëm meewaan nga bàyyi ñu ci des te ñu population ba fa nekk mënoo ko compter loolu foog naa ni defar ko benn yoon defar un kilomètre de route bu mu jëm dayaa moo gën a rafet beneen bi ci des mooy boo demee Ngadiaga dama fa dem ñoom population ba ñoo defar seen hôpital ba mu pare jàppale leen ci loolu